نوغي جولي دي سلمال جاب يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم دي نان سنو برامو دكي دوتي وايم خيول تي كاو يونت بوباك أي صحابة رضوان الله على الصحابة أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم dellu siwaat nañ beneen yoon ci bindab tafsir al quran al azim ci saaru màgg wi di suuratu yusuf di saaru fukkeel ak ñaar ci téere bi tey mooy ñaareelu bind <coughs> ci suuratu yusuf ginnaaw boo xam ne bind bi weesu def nañ ab muqaddima muy ak laytaay ci suuratu yusuf laytaay guy yombalal aji gëm yàlla ci ngir mu mën a jariñu ci li nekk ci saar wi sunu borom bi ngi wax subhanahu wa taala audu billahi min alshaitan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا له قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن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 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به قال إني إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون laaya jooju di fukki laaya ak ñeent ci suuratu yusuf mooy nekk sunu bindab tey insha allahu taala suuratu yusuf mooy saaru fukkeel ak ñaar ci téereb sunu borom bi ci tartib bii nu yore muy almushaf al osmaani saar wi mi ngi làmboo téeméeri laaya ak fukk ak benn saar wi ci saar yi wàcc màkka la bokk bu nu àndee nu fàttaliku ci sunu bind bi weesu waxoon nañ ay yëpp ci ak laytaay wala préparation bu dër ci nit ki xam ni saar wi day li mu làmboo ci ay njariñ bari na lool ak sew-sew yi ci nekk yoo xam ni junjoon nañ ko nga xam ne saa buñ ci yeggee rek kenn ku nekk da koy bàyyi xel borom bi tabaraka wa tàmbali saar wi lim tàmbalee mboolem suwar yi nga xam ni zawatul xuruf al muqattaa saar yi nga xam ni ay doggiti araf la tàmbalee comme ni ngeen ko xamee li ko tàmbalee ca juróom benni araf ba ci benn araf تملي كاف ها يا عين صاد بعكس صاد ولا نون أكلة دي كنتبا حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را ألف لام ميم أك نيجن كو جيسي تيري بيغا خمني برام بتبارك وتعالى دفنكو موي أك داك جي غوري دي وانيني القرآن دي تلي لتنكو waaye nag ba léegi nit ñi mënuñoo wax ak jinne yi wax ju ni mel ndax waxi suñu borom العلامة ابن كثير رحمه الله وكذلك من قبله من المفسرين كم ابن جرير نيوم وكذلك من بعده من المتأخرين تي بارام خم خم ييغا خم ني خم نان لين تي تفسير القران أكتك تك با خم ني تي لا يونس صلى دون سكندي كو في صحابام كو ابن كثير موم داي li ëpp ci saar yi mu romb ci tafsiram day wax ne la ma ca doon wax wax naa ko ca suratul baqara ba noppi la mu waxoon ci suratul baqara mooy baat yii dey araf yii day moom la ñuy tuddee alxuruful muqattaa kenn rekk xam lam ca namm muy suñu borom ànd nag xam nañ ci ni ci araf yooyu ci lañ tëggee alxuraan bi yépp te nit ñi ak jinne yi mënuñoo fexe ba indi lu ni mel ànd ak ñu xam ni day wane li ñu tudde al i'jaz mooy daggeeg tëlaloo nit ñi mooy lancer ab défi nangam jiide kenn mënu ko te nii la yombee comme ni ko suñu borom di waxee ci téere bi ci ay barab yu wuutee borom bi mu ni tilka loolu ngeen di jàng nii di ko tiim di ko dégg di ko xam nee na ayatul kitaabi mooy aayay téere bii nga xam ni almubiin téere bu leer la ba ni nañ inna nun yàlla anzalnaahu ñoo ko wàcce qur'aanan ñu def ko alquran joo xam ne arabiyan arab yu set wecc la laallakum taaqiluun ngir ngeen mën a xellu te mën a alquran ji borom bi tabaraka wa taala làkk wi mu ko tànnal pour mu wàcc ci mooy làkku arab kon di nga ci xam ni bu amoon làkk woo ko gën a foor wala gën koo mën a jotal ca la ko suñu borom di wàcce bu amoon làkk woo xam ne moo gën a baax ca la ko suñu borom di wàcce waaye nag laallakum taaqiluun ja danañ ci am sew sew bu la am solo bu ci lema su mooy alquran ci boppam day dàggim xel alquran jii ngeen di jàng daal sabab lay doon ci di ngeen xellu moo tax borom xam-xam dañuy wax ni gi am xel dara gënu caa gaaw alquran ubbi am xel dara gënu caa gaaw alquran waxuma la ne nekk gi mu nekk jaamu yàlla ak njëriñu si toog ibni kathir rahimahullahu taala nee na wa dalika li anna lugata alarabi afsaxu lugat làkku arab ci boppam nee na moo gën a set moo gën a jot ci mboolem làkk yépp wa abyanuha moo gën a leerit nag làkk yépp loolu moom amut werante du wax ibni kathir kese waaye ak dëppoo la maanaam ku wax lu wuuteeg lii rek yow yaay chaz mooy sa wax jooja waxuwul wa awsauha moo gën a yaatu nag làkk yi ne ci àdduna bi yépp boo leen dajalee facilité bi am ci làkku arab nga xam ni léeg-léeg nga bëgg a wax lu bari ci làkku jàmbur arab tënkal la ko ci ñaari baat wala benn baat loola moom mboolem ñi gëstu ci wàllu littérature xam lan mooy làkki adduna bi nangu nañ loolu waaye mu teg ci ni moo gën a fës ay njariñ te gën a gaaw a àgg ci xol na nee na moo tax alxuraan bi mu nekkee téere bi gën a tedd ci téere yi mu ni sunu borom kon da koy tànnal làkk wi gën a tedd ci làkk yi alquran bi mu nekkee téere bi gën a tedd ci téere yi suñu borom da koy tànnal làkk wi gën a tedd ci làkk yi mu ni bañ ko tànnalee làkk wi gën a tedd ci làkk yi dañ koo jox ca ndaw li gën a foor ca malaaka ya muy jibril ni ko yóbbul mu ni ñu daal di koy jox ndaw li gën a foor ca yonent ya muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu daal koy wax wàcce ko ca dëkk ba gën a foor muy màkka moo taxit ñi ngi ko wàcce ci weer wi gën a foor muy weeru koor xanaa ma tegal ko ci ni kon ñu tàmbal ko guddi ga gën a foor muy laylatul qadr kon wax jooju wax ju rëy la joo xam ne ibni kathir mi ngi koy wax ci tàmbali suratu yusuf borom bi tabaraka wa mu ne alquran jii ngeen di jàng de téere bu leer la nun yàlla noo ko wàcce mu nekk alxuraan ju fës ju leer naññ di arab yu set wecc la allakum taaqiluun ndax ngeen xel sunu borom mu ni nahnu nun yàlla naqussu alayka noo lay netti nag ahsanal qasasi gën jaa rafet gën jaa baax ci ay nettali ahsanal qasas ñeen ci borom xam-xam yi dañuy wax ni saar wi lan ci namm muy suurtu Yuusuf am ñu ne déedéet alquran ji ci boppam ak li mu làmboo ci ay qasas yépp moo tudd ahsanal qasas te loolu mooy li gën a jot li gën a jot mooy alquran ci boppam mooy nettali ahsanal qasas ndax adduna waxuma sax di gam-gam le téereb yàlla ak téereb keneen waaye même bu nit ki xamul woon ni téere bii yàlla moo ko wax ñu wax la li ci nekk rek nga dégg ko ci ay netti nettali ñu indil la beneen téere diwa ko taalif ñu wax ci ay wax di nga gis ni ah, li alquran nettali moo gën a jotal moo gën a rafet kon ahsan al waaye ci biir ahsan al qasas nag suratu yusuf ñëw nag ngar daajjoo la nga xamante nii moom mooy neexit ya sunu borom di junj ci li nga xamante nii moom mooy nettali yi borom bi tabaraka wa taala mu ni bima awxayna ilayka ci liñ la waxyu hada alquran alquran ji gis nga ci liñ la wax waxyu mooy alquran danañ la ci nettali nettali yi gën a jot te gën a neex te gën a baax te gën a rafet moo tax amut wettilikukaay bu gën a rëy alquran yu dagan yaa nga faat yu araam bu dee ay nettali nga bëgg ña nga fa ñu baax nañ ña nga fa fees dell safaan ya ña nga fa fees dell lay jëriñ ci àdduna ma nga fa la koy jëriñ ci àllaaxira ma nga fa mboolem xabaar yi ña jàll ak ñiy waaj a ñëw suñu borom tënk na ko ci ma farraqna fil kitaabi min shay borom bi tabaraka wa taala mu ni wa in kunta doonte da ngaa nekkoon min qablihi ca lu jiitu alquran ji wàcc ci yow la min al nga bokk ci ñi nga xamante ni xamuñu maanaam dañoo réer dañoo réer ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni balaa alquran di wàcc ci moom melut ni mu mel sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bala alquran di wàcc ci mom yaronte bi alayhi salatu wa salam mel won ni wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ah ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء كن لكو جيتو نيكو وون كو خامني دون nga bind daawoo bind te daawoo jàng su doon bind ak jàng jiitu woon na ci ñu lay yónni idan lartaabal mubtiluun kon waxkat danañ man ni kon boo demee lii da koo jàngoon mokkal ko denc ko waaye bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladina utul ilm kon borom bi tabaraka wa mu ni lu jiitu ñu lay wàcceel téere bi day xamoo woon da ngaa nekkoon ku comme ñëpp moom ngeen gis wa wajadaka boolan fa hëda gindeeku woo xamoo fu yoon wi féete yàlla mu ni man maa la gindi wan la yoon wi mu nekk nuuran nahdi bi man nasha yàlla di ci gindeeku ko soob borom bi tabaraka wa taala tàmbali nag di nettali qisatu yusuf waxoon naa leen qisatu yusuf moom moom rek am li mu am ci alquran maanaam jël ab nettali moom daal di koy tënk ci aw saar rek wax ko fa mu daal di jeex ñu jàll ca leneen boo seetloo ginnaaw surtu yusuf ñaari barab rek ci alquran la Youssouf baatab Youssouf sax ñëw fa muy ban ak ban ban saar ak ban saar. ñëw na fa benn ak fan. Anaam ñëw na fa benn jeex na Gaafiri Anaam Youssouf jeex na Youssouf moom ay waxam moom bëriwul ci alxuraan boo ko seetloo waxoon naa leen borom xam-xam yi ñenn ñi dañoo am xóotal ñu ni. mbir mi dafa nek mbirum fami mbirum famille nag laajul yaatal laajul wasaare moo tax borom bi teunk ko ci aw sahar lolu hikma ju rëy la waaye allahu aalam bi muraadi la tax mu def ko moom sunu borom moko xam borom bi muni id fatlikul qala bam waxe yusufa yonent yàlla yusufa alayhi salam li abeehi nyal bayam badi yaqub alayhi salam muniko ya abati yow bay sama yaa abati baat bu am yar la mooy bàyyi sama ci wolof te bàyyi sama teggin am na ca waaye yërmande it feeñ na ca mu ni ko inni man day ra'aytu dama gént ci ay nelaw gis ahada ashara kawkaban fukki biddiw ak benn wa shamsa jant ba nag wal qamara ak weer wi tamit ma gis leen ra'aytuhum ñoom ñëpp lii saajidin ñu ma su ñu may sujootal gént gii nag gént gu foor la yusufa alayhi salaam bi mu nekkee tuut tànk di gone dafa tëdd ba xaaji guddi mu gént borom bi wan ko ci ay nelaw fukki biddiw ak benn fàqee ca asamaan sa ah, di daw aw xel ñëw ba ci ron ay tànkam sujootal ko mu séenaale jant ba ak weer wa ñu fàqaale ñoom it ñëw su jootal ko mu ni xefeet yewu ci ay nalaw foofu li may njëkk a wax mooy gént ci jëmmi boppam daa bokk ci kéemaani suñ borom yi da xam ngeen ni allahu yatawafal anfusa xiina mawtiha nit bu nelaw jotee yàlla moo koy faat wala ti lam yamut fi man fi manamiha fa yumsiku alladi qada alayha almawt wa yursilu ukhra ila ajalin musamma gént mën naa dikkal nit guddi mën na ko dikkal bëccëg gént nag ci kéemaani yàlla yi la bokk àdduna nekkut lu waay gént rek dëgg la nekkut it lu waay gént it nag yàlla moo la ko wan nekkut lu waay gént it yëfi saytaane la nekkut it lu waay gént am na lu muy tekki gént it nag bari ci ñu koy woote woo firi mënuñu ko firim gént doola bu suñu borom di maye nekkut lu nuy jàng ci ay téere comme ni ngeen ko xamee nga xam diw sàngam daaw moom mënta woon a firi gént ñu ne daa demoon jàngi firi gént d'accord nit ki mën naa am ak may ci firi gént mu dem yokk xam-xamam ca ña xam firi gént nit mën naa bañ a am firi gént mu dem ci ñi mën a firi gént ñu di ko waxal ba mu am lu mu ca xam waaye jëmmi nekk firikatu gént moom kooko don la boo xam ne suñu borom moo koy mayee subhanahu wa foofu foofa ca ngay sukkandiku ko xam ne lii ngay dégg tey ci rajo bi ak télé beeg yu ni mel benn waay toog benn place rek fu waay jógee ci ruqi àdduna bi loo gént même boo géntee ak ñax sax mu ne la nàngam lay firi loola moom ko amum xel ca xam sharia ni muy tëggee yëfam da nga xam ne lii ay naxasaka ndang la beneen bi ci des mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu àddunay waaj a tukki na lu gént ak jullit di mooy mooy yow mu baax bi lu nekk di julli di def jaamu yàlla na ko waree li ëpp mën ngaa gént fekk suñu borom moo la na ma wan bàyyil xel nit ak ahlu sunnati wal jamaa dàquñ ni yàlla mën naa wan nit ki ci gént loolu tamit am na de mu leer naññ nit ki mën nañ kaa liggéey sunu borom wan ko ci gént mu leer nañ naññ liggéey baa nga barab sàngam di ko def nit ki mën naa réerle sunu borom wan ko ci gént mu leer naññ la nga réerle ma nga barab sàngam nit ki mën ngaa ñaan yàlla dara suñu borom wan la ci gént mu leer nañ ñi mbir mi ngay ñaan gënut maa gën na yooyu lu am la da gént nag firi ko lu doy waar la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee gént ci tànk picc la nekk xam ngeen picc tànk bi gis ngeen ni def nii nee na tànku picc bu ñu kepp ci la gént nekk buñ koy firi muy wax kon ëpp naa def ngay gént rek waa joo njëkk a dajal rek ni ko ko tax wax ko ko loolu musiba la li su sunna jàngale mooy su dee lu baax nga gént mën nga kaa li waaye nag seetal ñala la sopp wala nga sopp leen maam ña la gën a jege te nga xam ne lu baax dong lañ la bëggal bu fekkee li nga gént safaan la nag taflil sa càmmoñ ñetti yoon ba muy ñetti yoon tafli gu woyof nga musulu ci seytaane borom xam-xam ñu ne boo mënee jub nga julli ñaar ràkk sax léeg gént yu raglu mu nit mën naa tëdd gént gént gu doy waar gu raglu gu kéemaane waaye lu mu réer raglu raglu taflil sa càmmoñ ñetti yoon rek jeex na te it boo xëyee bu ko nettali nag su li mënta ñàkk seetal ku wóor lu mel ni Abdullah ibn Umar ba mu géntee ñaari malaaka jàppoo ko di ko guutambaay jëmee ko sawara xam nga loolu lu garaaw la waaye daf ko rusa nettali yonent bi mu nettali ko Xafsa Xafsa ko nettali yonent bi kon mënees naa nettali gént gu doy waar waaye nag bañ koo nettali moo gën su mënta ñàkk day nga nettali ko ku yaakaar ni kii xam na ca dara wala ku la mën a xelal mu di borom xam-xam wala ko xam gént ila axiri gént nag dee su ci sukkandiku pour tabaxi àtte déedéet lu gént ak jullit baax baax doo gént fii rek ñu ne la saraxel aw nag nga daal di yeew ni kon xaaral ma dem saraxew nag déedéet gént moom kenn du ci sukkandiku pour tabax ay àtte su gént gi ñëwee nag dëppoog loo xam ni yàlla da koo digle wala ab yonanteem ñu xam day gën a dëgëral rek waaye lu bees daa beesal dong waaye indiwut lu bees gént nag am na ñoo xam ne yàlla daf leen a defal lu doy waar mooy suñuy gént rek di ko gis loolu moom ajuwut ci xam-xamam ñàkk xam-xam ajuwut ci xam-xam ak ñàkk xam-xam léegi la yëf yi jaxasoo àddinay waaj a jeex daanaka kenn xamatu ji doon xew waaye noonu ñu ngi fàttaliku lu yàggul bërkaati démb boo njaay bi ñuy nekk ay gone da ngay gis ca kaw ga da gis koo xam ne dañ naan ko yow moom sooy gént bu yow ngay gént jàmm lu ko waral mooy yàlla da ko defal lu mu gént rek bu yeewoo da koy gis ab yonent nag alayhi salaam moo ci rawati moom moom lu mu gént da koy gis waaye li muy gént waxyu lay doon ndax ru'yal anbiya xaq moo tax ba dem ci saxul Buxaari ba muy indi ci baabu bat il waxyi ba mu leeralee gént ga yonent bi géntoon sallallahu alayhi wa sallam ne ci li ko Xadija ak waraqatu nawfal dañu ab yonent moom bu géntee la mu gént moo ko wax yu ñoo bokk yam bokkut ak suñu gént naxas ak ndag yi nga xam ni léeg-léeg nit gént fekk yàlla ko wan léeg-léeg ko waral léeg-léeg nit gént fekk seytaane koy yàqal léeg-léeg nit gént fekk nekk ci xelam dong la doon gént léeg nga gént coono yéeg wàcc affaire bi metti fekk kayit yi nga yendoon lijjanti sonn ci dong nga doon géntaat ci guddi kon gént yooyu mbir faw nit di ko bàyyi xel yusuf alayhi salaam dafa gént fukki biddiw ak benn te mi ngi amoon fukki mag ak benn ak fukki mag la amoon ak rakkam fukki mag ak rakkam muy fukk ak benn ak moom muy fukk ak ñaar moom nag ci gént gi gis na fukk ak benn ak jant baag weer wi ñëw di ko sujjóotal raaytuhum li saajidin man day gént gi jaaxal na ma ndax dama leen a séen ci gént gi ñu ngi may sujjóotal xoola bàyyi ji ni ko yaa bunayya ay ndo ndoom sama sa gént gi rëy na de laa taqusus ruyaaka ala ixwatik gént gi moom gas ko fii nga suul ko fii laa taqusus ruyaaka gént gi bul ko nettali ala ixwatik ci sa frère yi fa yakiidu laka kaydaa boo sàggantul mën nañ laa fexeel ay am pexe inna shaytaana shaytaana day lil insaani ñeel doomu aadama nekk na ci doomu aadama aduwun mubiin noonu bu fës ci yuusufa bi mu géntee gént gi ki mu ko nettali kan la baayam baayam mag la ab yonent la nit ku baax la kon jaar na fa mu war a jaar bàyyi ji ni ko yaabu na ye ndoom sama laa su ru'yaaka ala ixwati fii mbokk jullit yi ak bata bàyyi xel waxu ko sa gént gi bul ko nettali nit ñi xam nga ñun nettali ko nit ñi lañ doon wax ñun ñun li ma doon nettali sànq lépp nettali ko nit ñi ak ab soppeek ku dul soppeek nit ñu soriñu waaye fii moom sa frère yi nga bokkal benn bàyyi sax bu leen ko nettali bokk jullit yi ndax xalaat nga ni kii mooy Yuusuf di bu yonant baayam di Yaaqub di doomi yonant ay doomam di doomi yonant bokk ak moom benn baay ba pare mu ni ko gént gi bu leen ko nettali kon du du lu ne la ñuy nettali ku ne adduna du lu ne la ñuy nettali ku ne ndax bu amoon kun doon nettali yaakaar naa ni ki nga bokkal ndey ak baay ki nga bokkal baay sa ndijaay sa deret ñooña nga koy nettali waaye sa mbokk yii de bu leen ko nettali borom xam-xam yi dañuy wax ni seen baay day ab yonent la yàlla may na ko ci leeru leeruk nubuwa ba buy wax xam na li muy wax lan la waaye mag mi bi mu settantaleeg njobootam gis na ni mag ñi niñ waree bëggee gone gi bëggeewuñ ko noonu ci seetloom ci seetloom mag ñi ci boppam niñ war a toppatoo gone gi toppatoo gi des na ndax mandarga yi njëkk a feeñ gone gi gone la waaye boo xoolee taar moo ko ëppale ay magam gone gi gone la waaye saabooy waxtaan ak moom du wax waxi gone moom daal waxi mag rek lay wax gone gi gone la waaye xolu baay bi tafu na jëm ca moom loola nag baay ja seetlu ci ni yëf yii dey jëmut kër moo tax mu ne ko bu ko nettali say frère foofu nag dinga ci gis ni àdduna du lépp la ñuy nettali ñépp te it nga ci déggee nit man waxuma la nit ku jàmbure waaye nit mën naa bokk ak nit ba pare añaanee ko te it nag borom bi tabaraka wa taala ku yéeme la ay nit mën nañoo bokk benn baay bokk benn yaay bokk ndey baay te duñ bokk cër yi leen suñ borom di séddale ndax borom bi wan na ay mandarga ci Yuusuf ànd ak baayam comme firikatu gént la woon xam na li gént gi firi moo tax ñenn ci borom xam-xam ñu ne baay ji da koo firil gént gi am ñu ne déedéet firilu ko moom moo ko xamaloon parce que yàlla xamal na ko firi gént daa ñëwoon di wax baayam wa ala ayati xaal bu mu ci man a doon ci ñoom ñaar mbir mi bul ko di nettali kon mbokkum jullit mi yëgal ni adduna du lépp la ñuy wax arab yi sax dañ daan wax ne fa in aradta najaaxan aw buluuga munan faktum umuraka an xaafin wa muntail soo bëggee réussir wala nga yegg fa nga jëm say mbir moom amut kii sol na daal amut kii solul daal xam nga àdduna moom nit mu musoo gis nit ñi moom da ngay sol daal maa nga bañ a sol daal nit koo xamante nii soloo daal bañoo sol daal solo daal defoo tànk neen loolu amut moom nit moom faaw mu sol daal faaw mu wala bañ koo sol kuy sol daal ak ku dul sol daal la ci am del nëbbu xadisu istainu ala qadaai alxawaaij bil kitman kooku ñenn ci xam ñu dafa daif donte maanaam moom lu wér la mooy soxla yi dee leen ci dimbali koo nëbbu di nëbbu soxla yi léegi nag loolu da du tekki ni maanaam diw dama kaa wóoluwul wala su ma ko wax déedéet loolu sunna la nit koy seet la ko neex mu wax ko ña ko soo léegi nag ñun ni ñuy dundee su fekkente ni da ngay da nga am men mbir boko waxe di diw ko diw fini bu ko diw yegge lamay wax moy ki def ma xef ki def ma nagam fek dir amna ci droit di nit moo mom yëfam moo gént ak géntam mo am lu mu xam mo am lu muy nar mo am fu jëm bu nako waxut sa yoon nekk ci comme nima ma ko yàggee wax ci qisas yi diggante yenn sasam ak sahaba benen bi ci dess moy inna ash-shaytana shaytana day lil insani adlu bin gis nga yaaquub ku mënoon a yar la xale yi gis na ni bëgguñ ko nekk mag mag ñi bëgguñu ko nekk ni ñuy jëflanteeg moom rafetu waaye am na waxit wu mu doon wax day jëmbët ak noonoo diggante gone ak mag bi sa gént gi de bu ko nekk li ndax ñii gis naa ni bëgguñ la loolu nit dina ko wax doom sa mag yii sa kii nga bokkal bëggu la sa kii nga bokkal baaxul gis naa ko loolu kilifa du ko def ndax loolu mooy yaa ngi zaru yaa ngi jëmbat ak noonoo ci sa biiri doom mag day xam lu bari wax tuuti li wolof yi tuddee xam ba ca da ngay xam ba pare ba ca lii daal bu ko nettali say frère au lieu que mu naa ko waaw ñoom lu tax mu ne ko seytaane laay bañ mu dox ci diggante bi kese gis nga inna yëf yi jiñ leen ko seytaane inna seytaane lil insaani adu seytaane def noonu la te mën nga leen koo nettali seytaane indi ci am njaxas fekk baay ji lam bëgg a wax du lii baay ji lam bëgg a wax mooy gént bi àggee ci frère yi de musiba dana am bàyyi ji leen bëgg a wax mooy say frère bëgguñ la ñii kat toppatoo wuñ la ñii kat buñ sañoon doo yegg fa nga jëm waaye loolu kilifa du ko wax ay doom parce que day mel ni kon yaa ëffal say doom yaa yàq kon bul ko nettali say frère kon ku dul say frère taxut di wax borom xam-xam ñu ni moo taxit Yuusuf jëfe na gént ak baay ga am na ñu ni nag gént ga mujj na seen na ñu ne lu tax mu seen na wax nañ ca ay wax xëy na comme ni ngeen ko gisee rek léeg-léeg ñu naan euh, kenn ca soxna yo moo ko dégg nettali ko ay doomam léeg-léeg ñu dégg façon version yi ngay dégg waaye loola moom gisuñ ca benn tegtal bu leer lu dul daal gént ga moom ma nga fasu yusuf dégg na ndigalal baayam noppi borom bi mu ne wa kadalika nii la yàlla wanee gént gi ba mu leer naññ sa yeboo nga xam ne yajtabika rabbuka yàlla dana la tànn allahu akbar yàlla tànn na la wa yuallimuka min tawil al ahadith yàlla muy dinaa la xamal pirim gént loo mës a gént nag boo ñëwee Yuusuf tekki la loolu moog yonent bi ñoo ko nërile woon sallallahu alayhi wasallam am na ci nit ñi nag ñu mel noonu yonent bi xam ngeen daana julli fajar sallallahu alayhi wasallam mu ne ku gént ak gént nga ñëw ma tekki la ko saxaaba yi géntoon di ko wax mu di ko tekki léeg-léeg nga gis ku gént lu doy waar mu nettali gis naa nangam ak nangam ak i nangam gis naa nangam ak i nangam ak i nangam man daal damaa jékki-jékki ba yàgg rek ma seen ab baag bu jóge ca asamaan sa di ñëw ku def meew yonent bi saa salaam nga naan ci bi nga ci naanee ba noppi mu naan ci bi mu ci naanee ba noppi mu jox Abubakar bi mu ci naanee mu jox ci Omar Omar jamono jooju mi ngi sol yëre yu rëy yonent saa salaam ne loolu day diine lay tekki daal di noppi maanaam day wane nekkum bi topp ca Aboubacar topp ca Omar ñaareel mooy taraayub Omar ibn al-Khattab mu firee ko mbubu mu ak yeneen i gént yoo xam ne am na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu baree bari ay góor di ko gént ak ay jigéen kon gént ma nga fam nekkoon ba tey waaye xam nga ni xel bu fekkee meloo na nga war a mel ah yow sax gée boo demee julli woo ko ba julli parax parax la naa fi lay defoo ci dara defoo witar defoo dara ba ngay tëdd sax ñaanoo sax yenn ñaan su mooy boo géntee mën ngaa génte ay jaaxum di teg rek waaw mën ngay gént ay njaaxum di teg daanaka léeg-léeg sax li nga gént doo ko mën a nettali koo xam day gént ba pare moom moom ci boppam sax mënu tax li mu gént lan ndax yëfi ni mu jaxasoo waaye li gën a yéeme mooy lekk-lekk borom bi dalay wan ci gént nga mel ni kuy tànqam lu mu wanaat la ko nga mel ni kuy tànqam lu mu wanaat la ko xam nga loolu moom leer na naa ñi nag loolu day am de léeg-léeg nit danay gis dara ci gént mu di ko jéem a tànqam lu tànqam lu suñu borom wanaat ko ko noonu am na ay nit yu ñu ay mbir yu yéeme yoo xam ne ñu ngi dund ba tey yoo xam ne sunu borom dala koy wan ngay tànqam lu tànqam lu mu wanaat la ko ngay tànqam mu wanaat la ko léeg-léeg li ëpp day baam ba ñetti yoon am na ci ko ak duggam ak du woon ci ak ci lislaam lu mel noonu la ay mbir yu ko sunu borom di wan ci gént ba muy ñetti yoon mu doo a xam ne lii moom am na lu ko waral borom bi tabaraka wa taala mu ni kon dana la tànn moom suñu borom xamal la pirim gént wa yutimmu ni'matahu alayk mu matal ay xéewalam ci yow wa ali yaquba ak giir ak yaqub gi na xam ngeen ne yonente bi alayhi salatu wasalam ne woon na yusuf alkarimu ibnu alkarimi ibnu karim yusufa doomi ku tedd ki sëtëb ku tedd ki sa tërñib ku tedd ki muy yusufa doomi doomi yaquba doomi doomi Isxaaqa doomi Ibrahim biñ ne ko kan mooy ku tedd ki mu ne ku tedd ki kay mooy Yuusuf ku tedd ki doomi ku tedd ki sa tëb ku tedd ki sa tërñib ku tedd ki kooku Yuusuf alayhi salaam kon aali yaqub yàlla dana leen matalal kama atammaha comme ni ko sunu borom matalee woon ala abawayka ci sa bàyyee min qablu ibrahima wa ishaq ibrahim ak ishaqa kenn ku ci nekk ab yonent la woon sa ñaari baay yooyu ndax xam ngeen baay baay la maam it baay la kon mu ni ko sa baay ak sa maam muy sa ñaari baay yooyu yàlla matalal na ay xéewal ndax ku jàng dunu ishaqa jàng yàquba gis ni suñu borom defaloon nañu ay may may na leen ak nubuwa may na leen ak njoboot waaye may na leen tamit teraanga àdduna mu ni inna rabbaka sa borom yàlla day alimun ku xam la li muy def ak a xam waaye xakim ku xereñ la waaye gént gi mbokk jullit yi bi ko Yuusuf géntee ak balaa muy tekkee ko ak yàgg loolu di nga ci déggee ni ko ndeke gént du caage ne loo gént daa war a tekkee ko ca suba sa déedéet nit mën naa gént mbir mbir ma dem ay at ñenn ci mu arrixoon yi nee nañ affaire bi def na ñeent fukki at gént gi doog a tekkee wax ja gën rëy mooy am nañu ne juróom ñett fukki at gént gi def na ko donte ñeent fukki moom moo gën a dëgg doomu ñeent fukki at ndax diggante gént ga ak féreeku ga ci li ma gam-gam la yaakaaruma ne man na juróom-ñeent fukki at kon ñeent fukki at yi moo gën a dëgër kon gént gi def na ñeent fukki at doog a teggeeku ndeke nit mën naa gént dara borom bi bàyyi yëf yi ba nit ñi fàtte ba amaan na sax est ce que xam ngeen ne léeg mbir dana xew nga dégg bàyyi diw mu ni lii de di mos na koo gént nettali ñu ko te fekk kooka jóge na fi sax dana àllaaxira bu yàgg kon gént mën naa am mu yàgg lool mu doog a tekkeeku loolu tamit day faral di am moo xam ci boroom xam-xam yi la moo xam ci nit ñu baax ñi la moo xam ñi suñu borom narawan loola gént mën na caa yàggaay boobu borom bi tabaraka wa taala mu ni laqad kaana nekkoon na fii yusufa ci yonent yàlla yusufa wa ixwatihi ak ay frère ya ayatun ay kéemaan lissaa'ilina ngir ñeel ñi nga xam dañoo bëgg a laaj bëgg xam mbir ya nu mu demee ay kéemaan rot na fa de yusuf kenn la bokkaloon ku ñuy wax Benyamin kooka moom ñoo bokk ndey ak baay moo tax bi ci biir xissa bi ba mu leen ba mu nekkee ca misra di wax indi leen na sama rakk ja ah na ngeen indi sama rakk ja su ngeen ko waxu sax sama rakk ja parce que xamuñu woon moom mooy Yuusuf indi leen seen frère ba ah su ngeen ko indee di ngeen jariñu ah fa arsil maana axaana naktal aay jooju loolu lay tekki benn borom xam-xam mu ni benn waay boo xamante ni moom daanaka daa xaw a nekkum na xandul rek xamul alquran xamul daara gis yi rek muy firi alquran mu ni nakktal la xale ba tuddoon maanaam <laughs> andi leen seen rakk jooju tudd nakktal nga loolu moom daanaka daa daa sax wax dëgg yàlla gone ga benn yaameen la tuddoon loolu ñu ëpp ci muarrixuun ibni kathir wa xayruhum wax nañ ko sunu borom tabaraka wa mu ni yuusufa ki bokkam day kéemaani yàlla feeñ na fa id qaalu jamono ba ñu waxee la yuusufu yuusuf daal seetlu nañ ni wa aquuhu ak rakkam jii di benyamin ila abina moo ñoom la suñu gën a bëgg wa nahnu usba te ñu ñu nekk mbooloo loolu moom du mën a nekk borom xam-xam yi dañuy wax ni mag yi dañoo dem ba seetlu gis ni gone gi moom la seen bàyyi gën a bëgg loolu nag am na ay sabab yu ko war a ba da waral sabab yu naturel yi nga xam ne ñun mën nañ koo xam te ñun ñëpp mën na noo dal mooy xam ngeen ni en général soo déggan ñu ne ngeen baal ma ci kàddu gi ñuy wax caat day réew lu tax ñu daan wax loolu parce que caat da daan faral di nekk doom ji bàyyi di mujjee gis xelam di xalaat ni man dootuma amaat doom ci àdduna kooku lu mën ci megg meggal ko da koy def kon loolu naturel la pour ñëpp muy benn ñaareel bi mooy gone gi seetlu nañ ni taar bi nekk ci moom ak buy wax du wax waxi gone kum doonoon ci ñu nit nag nga bàyyi xel sa doom jooju de doom joo xam ni boo seetloo ak ci magam bu dee ca taaru adduna moo leen ko ëppalee bu dee teey ak dal moo leen ko ëppalee te nag du wax waxi gone de xam ngeen ni gént gi firnde la ci ndax gént gi du gént ak gone loolu moom kum am ci yow da nga am ñaareel bi Yuusuf baayam ab yonent la te baayam yàlla xamal na ko ni kii dana nekk ab yonent comme nam xamale woon yaayi Muusa ni ko inna radduhu ilayk wa jaa'iluhu min al mursalin kii moom dina dellu si ci say loxo bul tiit te it ab yonent lay doon te kooku jigéen la te du yonent kon fa kay fakk ki nekk ab yonent ba pare nekk góor kon xam na ni kii ab yonent lay doon yaakaar naa ne nag boo juróon di teg di jur di teg di jur di teg bañ toll ci jamono yonent donte yonant amatut ñu ne la yow sa ndoom si moom bàyyi ko xel moo na a nekk bu yonent bu soobee yàlla di ko bàyyi xel nag moom ak koo mën a doon keneen loolu nag mbokk jullit lu naqaree nëbbu la lu naqaree nëbbu la xam ngeen ni societé bi ñuy dund góor dina am lu ëpp benn ci ay soxna gis nga bu fekkee am na kenn koo xam ne bëgg gëm ko bëgg daa gën a fës ña ca des nëbbu ko du yomb góor dina am lu ëpp benn ci ay doom bu fekkee daa am koo xam ni moom la gën a bëgg na ko du yomb su boobaa lañuy dénk nit ka mooy mu ragal yàlla te góor góor lu mu ko mën a nag di ko nëbb na ko def waaye nit ñi lañ leen di wax ñu nangu dogalub yàlla te xam ni lii ñun ñëpp juddu fekk ko fi la ñuy dee bàyyi ko fi mënoo koo xeex ba mu jóg déedéet mënut nekk lépp day tege ci maanu te ak ragal yàlla rek waaye pour na fi na jóge moom nan ko fexe mu jóge fi loolu moom yow yaa fiy jóge yow yow moom yaa fiy jóge waaye loolu moom du fi jóge léeg li koy waral sabab yi koy waral day bari yuusufa borom xam-xam yi dañuy wax ni yaayam baayam da ko bëggoon lool wa kadalika moom miit nag baayam da ko bàyyi woon xel ndax xam ngeen liñ koy waxal sax kenn du ko waxal rakk ji te rakk ji moom ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay kon moo lay wan ni yi suñu borom wan yaaquba feeñ na ci yusuf ba tax mu di ko bàyyi xel lii nag bokk na ci liy jur jafe-jafe ci kër nag su dee moo indi kër yaaquba problème kër yaaquba di kër ak yonent yàlla tuddee ko aali yaqub nga xamante ni ñoom moom dañ leen tudd ci alquran tuddaat leen fa tuddaat leen fa kër ga di am jafe-jafe yii la ma waxoon mbokk yi ci jafe-jafe yi am ci wàllu sëy ma ni leen kër yonent bi kër gi gën a foor ci kër yi bu dee sa waay camion problème moo fa nekk yow soo bëggee kër gu amul problème nag sëñ bi yaa ngi bëgg bëgg lu jafe nag kër yi jafe-jafe yii bokk na ci yi ko gën a mën a yëngal ndax xam nga nit it nit la olof yi dañuy léeb ne lu ñëpp bokk lu ne ku ne da caa nekk lu ñëpp bokk lu ne ku ne da caa nekk lu ñëpp bokk nag lu ne ku ne bu ca nekkee bu ñu gisee koo xam ne lañ koy jox ma ngay bëgg ëpp wala boobu moom muy xuggali kuy mbagg di wane ne man kat am na fun ma teg ah loolu mën naa jur fitna ci kër moo tax jafe-jafe daal di am xale yi commencé am een ci yuusufa taar bi ci yuusuf ah, li ñuy tuddee añaan añaan baaxut nit ba añaane kum bokkal ndey ak baay bi génn góor ne nit mën naa añaane ba añaane doom jim jur nag ma ne loolu nag moom baaxut moom loolu moom ak mbon la moom wax dëgg yàlla añaane ba añaane doom ji nga jur nga xam ne yaa ko jur moom kooku moom moom musiba loolu moom feebar dëgg dëgg dëgg la moom loolu moom ay jëkk du jëkkay ñaaw waaye feebar la kon ñii ñoo waaye ak keñaan mi ngi tàmbalee dugg ci seen biiri xol ndax bu fekkee gént gaa firéeku xam ni ngóor si xale bii nga xam ne mën nañ ko bàcc bàccali léegi mooy wëlbatiku nekk bu yonent ah loolu nag moom doy na waar de te ngi koy gisee ci kër yi dangay gis kër yoo xamante ni ka ca raw gone la wala ka ca ëppale gone la wala ka ca ëpp doole gone la wala ka ca ëpp ay diplôme gone la wala ka ca tukki ila axiri noonu ngeen koy gisee ci adduna waaye loolu nag nañu yëg ni séddab yàlla kenn ku ci nekk yàlla bind na ci sa jëf li nga war a doon qabla an tuulad balaa ngaa judd gis nga soo bëggee noppalu gëmal ni fi ne bokk ak nit nday ak bàyyi taxut seen tiwoog wërsëg nekk benn bokk ak nit ndey ak bàyyi taxut seen tiwo wërsëg nekk benn ku nekk ak sa tiwo te it nag ku nekk fa sab cëwadi ba nee nga gis kii métier sàngam la yore kay yore lale kay yore lale bu doon am fulla ak nangoo liggéey dong masambay ëpp ëppale alal ndax moo gën a nangoo liggéey waaye yëf yi nekkul foofu dafa am loxo lu ne ca gannaaw di bi tarñi mooy lox yadul qudra huwa razaqu dul quwati matin sunu baram mu ni gaa yi ñu ah, lii moom du fi amee sunu bàyyi seetlu nañu yusuf la gën a bëgg lii moom du fi amee inna abana sunu bàyyi daal la fii dalaali mubin ci te ku rëy la nekk xam nga lii nag wax dëgg yàlla dub yar de lii la dub yar lii mooy mooy mooy paa bi paa bi di ma ko eenee comme ni ko gaa yi waxee façon terme boobu wala paa bi day dof dof lu xam nga am na ñuy wax loolu am na ñoo xam loolu la ñuy wax waaw wala paa bi dafa bëgg a dox ndawam ba na bëgg ñun duñu dox suñu ndaw gis nga façon waxin yu ñàkk teggin yooyu ak bu mu ca mën a doon daal mooy inna abana la fi dalalin mubin rek ndax jàpp naa ne kàddu gii moom ak lu mën a tekki ci baat yooyu nit waru koo yëkkati jëmee ko ci baayam même sa baay bu amee lu naqari ci moom sa baay sa baay la boo yéegoon ba ca kaw asamaan seen saafonteeg malaaka ya nuyu leen ngàbb fay garaat indi dugg ba ci biir suuf nuyonteeg néew yi ngàbb fay baraat indi garaat indi boo taxawee sa kanamu baay bàyyi dong lay doon wax fit janaaxaka lañ lay wax rek sa ndombay tànk yëpp tëral ko ci suuf wax fit janaaxak gis nga fi ne dem nga ba ca asamaan nuyoo nga ak malaaka ya dugg nga ci biir suuf si nuyoo nga ak néew ya ndaw kawteef waaye boo dellusee fii sa garaat yi nga jëlee ci asamaan sax yi nga jëlee ci suuf si yëpp sunu borom mu ni teg ko fële safut sa baay wax fid lahuma janaaxa dulli min arrahma kon bàyyi day nangam daal di wax yu ñaaw loolu de musiba la ñu ni uqtulu yusufa nañ ko liquité subhanallahi alazim gis nga seytaane ba mu ko tàmbalee ca haabil ak qaabil rey ko nañ ko liquité faat bi seetlu leen ko baax uqtulu yow nit naka nga mën a bokkee moom ndey ak baay ak lu mën a xew seen diggante amul benn automatiquement amul benn xalaat bu njëkk ñëw lu dul nañ ko liquité moo jóge fi moo lay wax ne gis nga doomu aadama intérêt yi addunaam da ko mas a jaral liquité gis nga boo duggoon fii tey ci jumaa yeeg jàkka yeeg entreprise yeeg usine yeeg maire yeeg ministère yeeg député yeeg subhanallahi alazim da nga fa gis loo xamante ni da nga yaakaar ni fii nekkuñ sax ci àdduna fa ci ay xeeti likitante yàqalante faagal faagaagal doomu aadama sa morom ngir intérêt diw mii suñ ko bàyyee mu kii fii boo moytuwul moom moo ñu nar a yilif nan ko yàqati moo xam ca sëriñ ba la ñuy dem ca bu xaawa ba ca nàngam ñii ngay dem Tamba ñii ngay dem Casamance ñii ngi ñëw Ndakaaru ñii nga dem fële nangam nangam moom daal na fi jóge rek na fi jóge léeg nga ñëw xool sees ba ngay toog fekk mu tooy xepp léeg-léeg ngay lëñ ci ay bagage fa ñu roqe nga teg fa butéel léeg-léeg nga ñëw ci dossier ya nga xam du dossier yu ñuy gaaw a laal fekk ñu teg fa ab xaatim wala téere ca suuf gis nga ila axiri nga gis nit di jànkonteeg ay xeeti metti ci àdduna loo xam ni ndeke doomu aadama moroomam moo ko ko teg wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun yàlla ak ak ak mën a xaar xaar bis nag sun borom ak xaar bis wala tahsabanna allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun yàlla mu da ngeen yaakaar ñi tooñ di rakkaaju ci tooñ da ngeen yaakaar ne liñ nekkee moom suñu borom da koo yëgut wala da cee mënul dara mu ne waxan kay innama yuakhiruhum li yawmin tasxasu fi al absar moom ab appam daa jot mu defi lam nar a def suñu borom ne may dama amoon ab app ci laay def la may def xoolal nit nga bokk ak moom benn bàyyi mu ne uqtulu yusuf rey leen ko man dama toog bu yàgg ma ne waaw ñoom sax bu ñu waxoon beneen wax maanaam baa di azi bat in xoolal balaa dara génn ñun nañ ko liquide moo lay wax ni kon maanaam mbir moom jaral na moom sax bakkanam moom aw wala boog itraxuhu ngeen sànni ji ko ardan suuf soo xam ne yaxul lakum wajhi abi wajhu abikum nañ ko rey wala ñu liquide ko mu génn fi yaxul lakum wajhi abikum mooy tolloog li ñuy tuddee ñun naawtal da ngay gis ku nekk fii jiite benn entreprise wala mu nekk benn DG wala mu nekk imaamu jàkka wala mu nekk ab borom xam-xam gaa yi def ko li ñuy tuddee naawtal xam ngeen naawtal mooy lan xeetu xaatim la boo xam ne gis nga bu ñu la ko defee boo déparé doo xam foo jëm réew ma nga nekk moom dootoo fa bëgg di dara di nga gis ñoo xamante ni dañoo tukki dem mënatuñoo dellu si nangu ñoo xam seeni bopp yàllaa xam lu xew de waaye li ci ëpp lii lay doon naawtal lay doon fekk ku la soxoree wala ku la añaane rek moo la koy def nga mel ni ku naaw dem sa am na lu ñuy tuddee wootal wootal mooy ñun ñoo fi nekk waxambaane yi koñ bi ah sa yaay gis ni diw ak diw ak diw doomam tukki nañ te moom doomam ci misaal rek laay joxe affaire bi naqari ko mu dem ci sëriñ ñu wootal kële mooy kële moom mu ngi fexe dañ fexe ba ñu rëbali ko baa ñu dàq ko mbaa mu yël ay sagaram xëy na damay ñibbi benn waaye laa ko mas a nettali mu ne ma gis nga yow liggéey wax ni xamoo ko ma ne ko nga ni mu ne mu ne ma ñun ñoo nekk Italie xëy benn waay munoo xam lan la moom daal liggéey wàcc amul waxtaanee wuñ ko waajuñ ko mu ne affaire bi dafa mel ni léeb ak lépp moom daal daa wàcc suba du ma fanaan fii Sénégal ànd ceeg rakkaaju goo ne boo xamul waa ji démb di nga xam ne kii li muy wax nii tayu ko te noonu la ko defee suba suba du ma fanaan fii damay ñibbi mu ne ñun li ñu jaaxal mooy waxuma sax lu tax muy ñibbi affaire bi ni mu gaaw waaye waa ji ni mu amee woon kersak rakkaaju gi mu àndal ci li muy def nii mel ni ku taxali ko sagor mu ne ci laa doog a xam ne kon lii ngeen di wax nii dëgg la loolu mooy wootal gis nga la ca ñu koy tuddee noobat xeeti njabar yi bon yoo xam ne benn bu ci nekk dañ koy def ngir yàqal doomu aadama loolu moom ci côté côté njabar gi la côté yi ci des nag moom moom likkite ray ray lay doon da ngay xam da koy jaral léegi nañ ray diw xam ngeen ni fii ci réew mii nga xamante nii fi leen tuddoon nekk fi yéen ñi ñu ko fekkee wuti dégg nañ xam ngeen ci ay mbir yu bari yoo xamante ni daanaka ña dem moom demul dem seen dem daa jot rek nag waaye am na loxo yu mu jaar yooyu yëpp ay yëf la yoo xam ne àdduna dara jaru ko fi looloo am fii ci réew mi gis nga ak li muy tuddee xabtal xabtal subhanallah maanaam njabar yi dafa am xeeti yëf yu bon yoo xam ne yow buñ la ci tuddal rek nga ni bu gën a bon sa bopp nit mën naa yorul liggéeyam xëy ba doo xam lu tax mu ba liggéey bu baax poste bu baax mu xëy démissionné te doo xam lu tax mu di amul benn raison bu mën a joxe est ce que xam ngeen nit mën naa wàcc jabaram te di joxe benn raison xëy fase sa jabar te yàlla xam na ni buñ la laajee xaala wala kasiran doo ko wax lu tax nga fase ko mënoo wax lan defuma dara daara la ma deful loolu mënoo nekk nit mën mu ni billahi wallahi tallahi defuma dara dara dara waaw ah, loolu mën naa nekk nit mën naa jékki-jékki la waajo a waajo mu ni ma ndax boo fasee sa jabar fekk dafa da mer dégg naa fase bi du tàbbi ma ne ko ba àddina sosoo ba léegi mas ngaa gis kuy reetaan di fase jabaram ku fase sa jabar da ngay mer kay doo koy fase bu fekkente ni ku ko fase te mer da ngaa mer doo mën si mës ta ndax mosu leen a gis kuy reetaan di xaaxataay kontaan yëf yi neex loolu nga fase ci sa jabar doo ko da ngay mer doo ko fase kon mbir mango jëlee leen ko fi yóbbu ko ci àll boo xam yaxul la ko moo ji abikum ñu naawtal ko wa takunu min baadi qawman saalihin su ngeen paree ngeen tuub loolu lay tekki wa takunu min baadi qawman saalihin mooy su ngeen paree ngeen tuub la li ibni kasir bu ne xoolal ñoom dañoo jiital tuub te defaguñ sax bàkkaar bi faf lii moo lay wan nit ñi dañuy font def leen ko demal nga njaalo demal nga sàcc këppal kees gi lekkal liñ la dénk amul problème soo paree nga dem tuub comme tuub boo ko defee yàlla baal la ah déedéet mbir mi demee wut noonu de wa takunu min baadi qawman salihin mooy su ngeen ko defee ba noppi xoolal xam nga ni lii li lay wax ni alxuraan waxi yàlla mooy dëgg ñii bañ koy def ba ñuy wax lii seen baay fekkewu ko ba ñuy wax lii Yuusuf fekkee waa ku ko fekkee ba di ko nettali lii secret la secret boo xamante ni wërta feeñ yéen xam ngeen ni secret bi wërta feeñ de secret ko bokkal benn bàyyi ñu likkite ko rey ko wala ñu naawtal ko secret bii moom wërta feeñ ku ko feeñal allaamul xuyub moo lay wane lii waxi yàlla yàlla mu ni gars yi ñu ne wa takun bali qawman salihin qala qailum minhum kenn ci ñoom mu ni déedéet loolu ëpp na laa taqtulu bu leen ko rey moo tax baadu sharri ahwanu min baadi foo fekk ñu bon lu bon ak lu gën a bon <laughs> borom xam-xam yi usul yi nee nañ bu ñu a bon te mënta ñàkk nga jël ci benn seetal la bon nga jël ko bàyyi la gën a bon ndax la bon a gën a bon bon moo tax ne a bon am na ci borom xam-xam yi ñu mu arrixoon yi ñu ni mag ja mu ngi tuddoon Rubil ñi naan Sam'un waaye yooyu amul solo nu mu doon amul solo ñi naan Yahuda moo nekkoon mag ja ay wax la yoo xam amul solo la am solo daal mooy kenn ca ñoom ne déedéet laa taqtuluhu bu leen ko rey loolu ëpp na suñu baay moom la gën a bëgg loolu jëru ñu rey suñu rakk loolu loolu dafa ñaaw wa alquuhu fi xayaabatil jubbi yóbbu leen ko ba ci teen bu sori ngeen tàbbal ko fa waaye damaa toog di xool ko sabab yàgg ba kii de daa mel lim tane ñee bëriwul de lim tane ñee bëriwul de ah yow kii de rey leen ko mu ni bu leen ko rey nga yaakaar ni leneen lay wax lu am njëriñ mu ni tàbbaleen ko ci teen te xam ngeen tàbbal cib teen daanaka mooy dee di kii yàllaa ko bëggoon a dimbali ak teen bu am ndox naka ko fay jëleen di ko tàbbal te nag fii xayaabatil jub bi dem ba ca àll ba àll ba xam nga bu doon teeni kër yi nga xam ne kenn fekk ko fa waaye teen boo xamante ni boo ko fa tàbbalee amaan na sax mën nañ toog ay fan nit du faroom teen boo xamante ni teen la bu nu gàddaay teen boo xam ne ma nga ca àll ba àll ba ñii koy dañ ko bëggoon rey rek daa fekk bon a gën a bon a fi daje rek bu ko defee gën a bon daal di bàyyi bon jët gis borom bi tabaraka wa taala mu ni yaltaqituhu baadu sayyaara lenn tukkikat yi lenn ci caravane yi doon tukki ah mas naa dégg ci benn waay buy tafsir ci ci ci télé bi muy wax bu yàgg mu ne baadu sayyaara mooy lenn ci ñoroon ay oto kon ba oto yàgg na fi de télé bi <laughs> xaw ma ban xam nga mooy tekki wolof ci mooy tekki ci wolof oto mu ne gis nga léewan ni baat bi yàgg na fi ak fee yàgg ci àdduna gis nga xam nga daa am wax yoo xamante ne daanaka yow waxuma la reelu sax waaye da ngay doya dal sa bopp sa sax waaw da ngay doyadal sa bopp sax yow daanaka jamono ji yàgg yi yu yàgg yaay yàgg yaay rek nga xamante ni ay mille neuf cent cinquante quatre ak yu yu demee noonu ay xeeti taxi arab aram ko nga xamante ni boo ko tuddee tey man sama classe dañu ñan waa luy loolu nga xam dégg doon xamuñu ko ndax booba yëf yi daa yees jamono yi Yuusuf ju yàgg jàng naan ay weñ ak ay mbatóo rek lu kenn xamul moo tax mi ngi noonu borom bi tabaraka wa taala mu ni gars yi ñu ne in kuntum faailin su fekkente ni da ngeen def gaa yi dëppoo ca loola allahu akbar ndeysaan booba liñ gis lépp mooy yusuf na fi jóge liñ gis lépp mooy nañ ko liquidé qaalu gaa yi def délégation ñëw ne yaa abana yow sunu baay maa lak lan moo tax ba laata aman naa wóolu ñu ci yusuf gis nga ku jubati boo seetloo discours am toujours rek la koy weddi la koy weddi ci biiral discours ba lay nekk moo tax gis nga xubaat yi xubaat yu jëkk yi ñu yeewu lañ woon qaadi bala nga xam nga dégg dégg ab ustaas ñu dem ba mu yàgg ñu ne ab alim borom xam-xam ñu ne ab faqir ñu ne ab muhaddis qaadi nag mooy romb nga yooyee yëpp moom ba am darajey nag war man di àtte nag moom kooka xam nga ni kon lim làq bari na de léeg-léeg da ngay ñëw di ci wax benn waay mu ne xujj ay bët di la xulli fixé la nag même fii sax gars yi dañ koy def de léeg da gis dañ lay dañ lay xulli seeni i bët nga xamante ni yow daanaka fit ak njàmbarte gi nekkoon ci yow sax day daal di commencé bëgg a dañ ci yow ndax fixé gi ñu lay fixé pour li lay bët waxal di di la napp yooyu gis nga de moo tax léeg boo seetloo ñiy dem ci yoon li ëpp li ñuy daanu lool la dañ lay tiital ba nga wax fii fekk am na ko toog ca rokk ba di ko bind nga demaat wax fële am ko koy bind ndeke ñaari wax yi nga wax wuute nañ moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ni booy seetlu dëgg-dëgg ki nar ak njubadi ak ki ko def boo seetloo ba ci biir ab discours am mën na caa bu dee ay kàddu man na caa feeñ bu dee ay ka kadaali yow la moo tax wóolu wóñu ci Yuusuf yow sa rakk la yéen a bokk benn baay bu sa baay ñàkkee wóolu kay am na lu xew loo def ba ñàkk laa wóolu lu tax doo ñu wóolu ci Yuusuf wa inna lahu la naasixuun te xam nga ni ñun ñu ko bëgga lu baax lañ ku koy laaye biir lañ ku koy toppatoo lañ loolu koy jërut wax sa rakk ji nga nekkal ci kër gi sa baay ci kër gi bu dee yaa ngi def lu baax tey sa na waaye justification yu bari yii yëpp moo lay wan ni kay am na lu làqu ca gannaaw arsilhum maana xadar bàyyi ñu dem suba ah yi gën a gaaw arsilhum dañoo bëgg nga bàyyi ko xadan suba yarta ñu foy yarta ñu dem sàmm wa yalaab ñu dem foy wa inna lahu la yàlla danañ ko wattu wóolu wuñ ci Yuusuf lu tax suba suba suba bëgg nga bàyyi ñu teg ci ñun danañ ko wattu kuy nodd kon ñett yëfa ngoog yoo xam ne jàpp naa ne ay firndee yu lay wan nit ñi am na lu nekk ca gannaaw lu nu waxu sunu borom tabaraka wa taala mu ni seen baay mu ni qaala seen baay di yaqub mu ni inni man day la yaxzunu nii dana ma tiis lool ant an tadhabu bihi ngeen yóbbu ko nag ca àll ba yéen da ngeen wa axaafu an yakulahu dibu damay tiit ngeen sàggan ba ak tilli ñëw lekk ko wa antum anhu gafilun baay ji baay ji moo la gën a xam ni tili du ko lekk seen gën a xam ni du ko lekk waaye wolof yi dañuy wax ni pour nga man mat kilifa dangay bari li ñuy tuddee ak taxaaful taxaaful mooy yëg mel ni yëgoo gis nga booy yi nag léeg-léeg boo leen yilifee dañuy yaakaar ni fi ne mën nañoo dox ci sa kaw xel mi léeg-léeg ñuy def ay affaires yaakaar ni yëgoo ko fekk yëgoo ko bu yàgg yàgg yàgg da nga koo yëg ni ceel barki démb damaa toog ci fële ci jàkka ja may tere xale yi bu ñuy jullee te bu kenn nelaw ci jàkka ji ma bàyyi bañ julli ba pare ma génn ma woo kenn mu ñëw ma ne ko yow xam nga lan moo tax ngay faral di toog ca ruq ba te kooku chaque jour rek ci ruq bi lay toog moom du nangoo ñëw fii mukk ma ne ko xam nga lu tax ngay toog ci ruq ba mu ne ma déedéet ma ne ko toogin bi ngay toog ak ci ruq ba de moom day toog yëg yëgtal ni ba mu jekk rek di nelaw doo ko yëg ma ne ko da ngaa foog da ngaa jàpp ni foofu mën nga faa nelaw te kenn du ko dama ko wax rek mu reetaan mu tegal ma ci doo def ba xam ko ma ne ko xanaa jiitu la ci ndongo <laughs> jiitu la ci ndongo rek laa def ba xam ko te chaque jour nag bu dégg ba sa saa bu moom daal terot ba rek lay toog nga xam ne naa nelaw ba dayal te kenn du yëg ne mi ngi nelaw te ni mu toogee toogee lu jekk nag lay toog bana xam ne dañuy wax fi tagaful am xel dëgg-dëgg bala ngaa way da nga yëg mel ni yëgoo xam mel ni xamoo léeg-léeg sax nit ñi ñiy jëflante yow sa soxna ak sa doom ak sa ñëpp sa mbokk ak ngaa yaakaar nit ki yëgul fekk lim xam sax bu la ko tuuroon yow sa bopp bi toj fekk mu ni ceel seen baay xam na ni ñii bëgguñ gone gi seen baay waaye loolu kenn du ko wax ndax bu ko xësoon wax rek daa gi lakk am na yooyu kilifa du ko génne ci làmmiñam da nga koy xam ba pare rek nga noppi li olof yi tuddee xam ba ca baay ji xam na ni ci waaye nag borom xam-xam ñu ni seen baay làqukaay la doon wut ngir bañ a laal fitna far lam doon làqu moo jur fitna ja mooy ñoom bañ déggee seen bàyyi ni tilli ñu ne aha am nañu occasion bu ko defee kon bàyyi comme mi ngi koy tiit rek bàyyi tiitu tilli si ñoom ñoo foog ni bàyyee tiit tiit déedéet bàyyi da doon wut lu mu làqatu pour bañ a tudd musiba ji far ñoom ñu làqatu ca loola moo tax dañuy wax ni bu doon ci côté sab noon dañ naan sab noon bul ko may fu la jaar ba jam la ci digg gannaaw mooy léeg-léeg am na bunt yoo koy yombal fa lay jaare pour jam la borom bi tabaraka wa taala mu ni seen bàyyi mu ni wa antum anhu xaafiluun fekk yéen xam ngeen rek dangeen ngeen dem ci àll ba topp ma rek ak sàmm nga ba tax ngeen sàgganee ko qaalu gaa yi ñun la in akalahu bu till lekk bu ko till lekkee wa nahnu usba te ñun ñu nekk mbooloo accam inna idan la xaasirun kon de ñun ñoo toskare dëgg dëgg dëgg dëgg magi jëm yi day ni ñun bokk ak nit benn baay nekk ca àll ba di xoole ba till di ko lekk kenn ci boroom xam-xam yi nee na seen baay moo la gën a xam ni li ñuy wax du dëgg kon lu tax mu yebal Yuusuf mu dem seen baay moo la gën a xam ni ñii nekk ak moom ci kër géeg bët yi ñu koy xoolee buñ demee ci àll ba rek li wolof yi nan golo buñ ko joxee almet ci àll ba rek àll bi yëpp nekkub daaj xam na ñii buñ génnee musiba am waaye am na ay sabab yu baree bari yoo xam ne ba ca gën a foor gën caa diis mooy dogalub yàlla dogalub yàlla gis nga borom bi tabaraka wa bu dogalee benn mbir bët ya ko war a gis day silmaxa loolaa tax njàccaar dox ba ni tëll mbëkk pota mel ni ko amuli bët fekk dogal baa kon mbokk jullit yi ñu ànd xam ni nettali bi Yuusuf njàng mu rëy ci mbirum famille ngi ci dinaay wax sama bopp di wax mbokk yi nii suuratu Yuusuf day ku ko tadabbur settantal ko di luqati li ci mën a génn lépp ci ay njàngale yu am solo surtout yëg ci biir famille nit ak ki mu bokkal nit ak ay soxnaam nit ak ay doomam nit ak ay frèram ak xam ba ca dégg mel ni déggoo ah gis ngeen saaga wañ saaga Yuusuf mu dégg mel ni déggut wax jot nga war a wax ñu bari ci ñun bu soo gisee xuloo léeg di yàq di yàq loolu la rek nit ki day mer ci saa si lim bëgg lim guux lépp mu bëgg koo yàbbeendoo moo tax mu yox ba waaye gis nga boo giifoon tuuti naay faral di wax ne gis nga décision ak mer ñoo bokk yam gis nga boo giifoon nga ni xaar ma xaar ba suba naa ko fam ba suba gis nga buy suba ngay changer discours buy suba rek ngay changer discours li may jeexale dafa am sunu benn waaye boo xam ne dafa joteeg soxnaam jote gu metti jote goo xat jote goo xam ne moom daa jéggi dayoo sax nag boo daanaka yoon sax jot ci biñ demee ba toog taabali waxtaan dara desut lu nag waxante ay baat pour tas am ci mbaaxug yàlla ak su ndimbalam ma ne leen nañ ko fomm ba suba ay pexe def ay pexe ba ñu fomm jotaay bii maa mu nekk tey nañ ko fomm pour suba suba ñu dajawaat ba pare pour ñu dajawaat ci suba sa waaye yàlla xam na ne ba ñu dajawaatee ci suba sa yëf yi daa sotti parce que lu ko waral gis nga ki mer ba ni tey ma wàcc ki mer ba ni tey ma wax lu bon moo ko mer ba ni nañ ma wàcc kenn ku ci def ndànkaat tuuti rek benn dina dellu sil boppam wa illaa yow di nga ko wax lu tax mu dellu te noonu la mbir mi demee pour xam nga xam ne léeg-léeg doomu aadama xam rek wax du lépp lu ñu xam wax mer rek naa yàbbi li ma mer lépp tey tey gis nga faw ngay dégg di tànqam lu surtout boo nekkee kilifa nag boo nekkee kilifa faw ngay dégg ñu wax la loo xamante ni daanaka kuñ ko wax nga dee waaye nga dégg ba pare noppi yooyu yëpp ay njàngale la yu am solo yoo xam dees na ko jàngee ci xisatu yusuf alayhi salaam nu ngi ñaan suñu borom an yuallimana ma yanfauna wa an yadfaana ma yuallimuna wa an yazidana ilman nafia wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi